أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورد الله الخالد عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا مولانا أبي العباس أحمد التجاني الشريف وعن جميع مقدميه وأحبابه وعن سائر خلفائه وعن كافة أهل الله وعن المؤمنين والمؤمنات وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تلسبكتاتر مالكية Malikia TV seen seen doom seen soppe seen jarbaat Alioune Diagne moo dellu siwaat ak yéen ci seen émission bi ñuy tuddee daaray Maodo fii ci Malikia TV leeru Maodo di ko séq ak yéen waxtu wu jot ci heure bii di am mbégte bu baax di leen nuyu di leen ziyaara képp ku dëkke réew mi moo xam ngay kilifa diine wala ngay kilifa aada ñu ngi lay nuyu di la ziyaara nuyoo yooyu nag ñu jiti jiiteel sunu wayjur sunu wasila maulana a cheikh a sayid aboubacar si ibnu cheikh alhaaji mouhamadul mansour si malik di ko siyaara bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér te di ko ndokkeel ci xew-xew yi fi jaar yëpp di lu kàddu yu rafet yu yiw yu sell yi nga xam ne dañul daan ko def di ko jëmee ci jaamu yàlla yi waaye rawatina ci jamono yi nga xam ne yan bi yëpp dafa tegu ci kawam ñu di koy yàlla ne ñaanal yàlla yàlla na yen bi woyof di ñaanal rakam ju baax ja Cheikh Alhaaji si Sy Maodo sunu sëriñ sunu baay sunu soppe moom it di ko ñaanal yàlla gudd fan ak sunu sëriñu bopp sunu wasila Cheikh Seydou Aboubacar Sy ibnu Maam Alaaji Abdu baax malik ak mbooleem doomu soxna yeeg imaam yi ak mboolem xulafaa yi ci réew mi ak seen njaboot yi leen yaakaar ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaanal diaspora bi hakaza di wax na ak yéen niñ baaxoo def seen émission bi di daaray mawdo di wax ne tey nag ñu ngi bëgg a waxtaanee responsabilité al masuliyatu ndax yonentu moo wax ne kullukum masulun wa kullukum masulun an raiyatihi kenn ku ci nekk responsable nga ca la nga jiite te boo dañ lay taxaw laaj la ko lañu la dénk noo ko sàmmee nan nga ko taxawee directeur école bi préparé li xew ci école bi ci sa loxo dañ la koy laaj ëllëg maître bi yor crème yoon bu duggee ci biir ak classe bi ba keroog muy wàcce nu mu fa nekkee ak taalib donga yi sëriñu daara bi ministre beeg ministère ba président de la république ak république bi mu jiite gouverneur de la région préfet de département si préfet bi nga xam ne moo yor commune ñëpp kenn ku ci nekk la nga jiite sunu borom yàlla dina la taxawal ëllëg na ko na ma la ko joxe woon nii nga ko war a sa na nga ko sàmmee baax na wala déet dafa am góor yàlla ñu di ko tuddee xaamisul xulafa mooy omar ibnul abdul aziz wax nañu ne de dafa maandu yàlla ba ragal yàlla googa dafa mujj yàlla royaatal ko ci population bi mu jiite ba diiru li mu di reñe nekk amirul muminina till mustalal laal bëy ci àll bi gaynde mosta fàdd rab ci àll bi kenn ku ci ne boo xiifee ñax ngay lekk wala xob ndax ragal yàlla ak nimu jiite rafet gu mu rafet dafa dem ba royaatal ci population bi moo tax yonent bi mu ne réew moo dem bul laaj na bu ka jiite réew ma nu mu mel rek population bi noonu lay mel benn pël mooy sàmm ci àll ba toog ba mu yàgg rek gis benn till daw rek song benn béy rek dóor ko ci suuf mu ne histoire am na ñu ne ah mu ne buur dëkk bi faatu na ñu ne ah mu ne seetlu naa ne keroog bi mu yoree réew mi ba léegi till mosta fàdd béy bukki mosta laal Euh, till gay na mosa laal dara ndax ragal yàlla am ku ne na mel rek sa kër noonu lay mel <laughs> keroog moom doom soxnaam moom lañ tuddee Fatimatu ñu ne al euh, euh, moom moom buur la xale bu jigéen bi baayam buur la woon ñaari frère buur la woon jëkkëram buur la bintul xalifatu wal xalifatu jadduhu jadduha ixtul xalaiqi wal xalifatu zawjuha moom rek moo ko amoon waaw marwan ibnu hakam marwan al moo doon marwan moo doon woy juróom ñaari frère yi mu am ay buur lañ omar ibn la abdul aziz ñëw nekk boroom këram moom tamit di buur waaye keroog bi ñu falee omar ibn al abdul dafa ñëw ci soxnaam na ah, quoi jigéen kat dama am dafa am lu mu bëgg jigéen na kaay ma wax la bëgg naa sëye góor gune waaye bëgg la sëye góor gune ñuq tey xeeñ lu xesaw bugg ko mu ne ko jigéen dafa bëgg jëkkëram di sañse bu génne ñu ne ah, alaaji ndeysaan loolu la jigéen bëgg te yow doomu buur nga te dama opté diiru may nekk président de la république yiris diina ji benn mbubb laay sol ba at mi dellu si rus naa yor trésor public xaalis bi na fi may sañse tous les jours nit ñi di ko gis bu mu wit wiit mënumaa mu miim ne mënumaa miim ne man du xaalis réew mi mënuma ko miim kon chaque tabaski dinaa xotti mbubb bu tabaskee buñ ne suba la ci guddi gi dinaa xotti beneen mbubb benn mbubb boobu lay sol bu ko solee ñaari fan bu duggee ci biir pale bi dafay tërëxlaayu jox jaam yi ñu dem fóotal ko mbub mi ci guddi gi weer ko bu subaa mu solaat ko ñëw toog biroom di gouverner ba keroog muy génn àdduna kooku moo bàyyi xel yàlla dal na sayiduna omar ibnul xataab dafa nekk amirul muminina ñëw ci jumaa ji di xutba sol benn jàllaabe bu rafet teg ci beneen kaalawoo benn jàllaabe bu woyof taxaw commencé xutba ayuhal muminuun ittaqullaha waala waalamu bi anna allaha benn waay bu gàtt taxaw fële ca cat mbooloo ma ne ko eh, buuru julit ñi may ñu yow da ngaa feebar wala la dal yow kañ nga rakkaaju tey ku ko defoon tey dootoo ko ñaareel fekk ab xalifa ci mbooloom nga def ko dootoo ko ñaareel Omar na tekk na ko lu ma def mu ne ko kañ la la seytaane dugg seetlu nañu la bi fi Seydina Muhammad nekkee benn mbubb nga daan jullisee ci jumaa ji bi fi Seydina Aboubacar Siddiq nekkee benn mbubb ngay jullisee ci jumaa ji Alioune euh, euh, euh, Baba Omar génnaat na ñu jël nguur gi jox la ko dawala guñ un nga jiital teg ci beneen kaaloo benn sol say sàncaak gàddu sa kaal yow dañ la fay teg pour nga gouverner wala dañ la fay teg pour nga noos mbooloo mi yëpp na wax na dëgg dootul jiite jumaa ji lu tul waxul ñu mbubam ñu rafet yi mu commencé sol fu mu ko jëlee mu ne mbub mi ma jiital de maa jaay sama toolu tàndarma jënd ko bi ci topp Usmaan ibnu Affan moo ko may bi ci tegu Seyduna Ali Muhammad ba muy dund la ma ko mayoon ñu ne du tax ñu xutba jumaa ji il faut ñu régler ko ñu boole ko xutba bi ana Usmaan mu ne maa ngi fi ñu ne nekk fi ñu ne dafa dem benn village fii ñu ne nañ takk gëléem ñu jëli ko ñu jëli ko ñu dugal ko ci panta jàkka ji ne ko Omar ibnul Xataab mu ngi ci xaw min bar bi toog dafa sol benn jàllaabe bu wert nee na yaa ko may oui ou mu ne wax na dëgg maa ko may ñu ne boobu d'accord ana baa jim ne moom la jaay tàndarma ji ñu ne julli si na jumaa ñu ne nañ ko andi ñu jaarale ko ci bunt ba Omar dafa la jaay tàndar mu ne waaw kañ mat na ñetti at tàndarma ji nu mu toll woon mu ne toll woon na temps ñu ne waaw mbub mi jar na ko kon d'accord bi ci des léegi kat moo doon seede yonent may ko mbub yàlla defal ko sutura Hasan doomu a Ali mu ngi ci biir jumaa ji mu yëkkati loxoom jóg taxaw ne bu dee jàllaabe bu bu maron de keroog bi ko ko sama maam Rasulullah di may maa ngi taxaw ñu xool jàllaabe bu maron ñu ne ko mat nga imaam jiite moo tax ñu ne al masuliyatu ñaar la masuliyatul fardiya ak masuliyatul jamahiriya dafa am ñaari responsabilité responsabilité bi nga xam ne yow la concerné sa digganteek sa borom sa digganteeg say bokk sa digganteeg sa sa bopp ak masuliyate bi responsabilité bi nga xam ne population bi yëpp la concerné naan ndox sànni ko ci sa mbedd mi mbuus boobu boo ko sànnee ñëpp nga tooñ ñëpp toog nga tax cigarette di ko tox ci mbedd mi ku mu xeeñ tooñ nga ñepp tok nga tek musique ci mbedd di rek koku responsabilité jamaa yi la ñepp nga ko def li la sa bop nak nga mom ko yor sa alal dem nané ko sangara wala yor sa alal dem taxawalo jiko ba mu jeeg koku mom lañuy yetu, al masuliyatu al fardiyatu yow ya koy ya koy gadul sa bop moo tax danaay faral di wax Serigne Mansour ci borom daara yi nañu ko yalla fayal ah Serigne Mansour ci ku xamone responsabilité individuelle bu nga xam mom la concerner individuel bi ko concerner mom xam nga lutax borom daara ji mosta wax xayda xayaatihi ila nas ngir ragal yàlla ngir maandu ak wilaaya sëñ Mansour foo ko dégg muy wax rek téere lay wax lu téere waxul mosta dugg ci détail mën Mansour mosta dugg ci détail mosoo koo dégg mu toog ci mbooloo nit ñi di ko dégg mu wax lu dul yàlla nee na yonent bi nee na sama maam nee na sama baay ne luñ bindul ci téere borom daara ji di ko wax parce que responsabilité ba lay daw moo tax sunu sëriñ bopp sëriñ Babacar si Abdou mu ne maam Abdou def ko yónni conférence muy dem mu ne ko boo demee looy waxtaanee mu ne ko papa bind naa tem mu ne ko soo demee ca penc ma waxtaaneyal ceeb ceeb ceeb bi ci saako bi waxtaanee ko mu ne ko muy luy lool mu ne ko ashariatu wa sunnatu boo waxtaanee xaala qaala allaahu qaala rasulullahi mu ne ah mu ne mooy ceeb ci pénc ku ko yóbbu sa kër nag bu la neexee nga togg sa daa bu la neexee nga togg sa ceebu jën la koy togg nag loola mooy la nga koy tuddee moo di tariqa waaye liñ bokk ci penc mi kenn ku ne waaye ñëpp wër la nga bëgg wan ñëpp ne maa leen gën sama bàyyi leen gën sama maama leen gën du ma seen morom boo ko weddee laajal diw gént na ma def nangam xotti naa asamaan si donte la yàlla defal na la loolu li doon responsabilité bi nga xam ne moo tege ci sa lool mooy orienté jaamu yàlla yóbbu leen ci yàlla kooku moom la ñuy tuddee al masuliyatu al jamahiriya wal masuliyatu al fardiya yàlla wax ci alquran ne wala tasiru wasiratun wisra uxra kooku mooy masuliyatul fardiya kenn ku ne responsabilité bi ma la teg wala tasiru wasiratun wisra uxra kenn du gàddul kenn benn bàkkaar wala benn njuumte ku ne loo juum bu yowmal xiyaamee yaa koy gàddu yàlla waxaat ne kullu nafsin bi ma kasabat rahinu kenn ku nekk la nga fàgg bu ëllëgee loolee sa responsabilité la yaa ko waxaat ci beneen aaya ne wa an laysa lil insani illa ma saye wa an na saayahu sawfa yura Seydina Aliin karamalaa wajoo nee na alquran ba mu daj bu ñu ko jëloon koos ko sànni ko benn aaya bii des ci ku nite te xam sa bopp mu war laa doy wa an laysa lil insani neexalul doom aadama bi ci àdduna ak àllaaxira illa ma lu la nga xam ne saa jëf na ko fi ku ne loo jëf rek loo lay sa cër Seydina Ali nee na cër boobu rek mu ne aaya bii rek doy na aya bi rek doyna waaw aya bi rek doyna kenn ku ne dal lo jëf man yàlla ma ngi ko fi tek fa man yamal mithqala daratin khayran yarahu way wa man yamal mithqala daratin sharran yara mu am nag lu ñuy mas'uliyatu al jamaahiriyatu yàlla ne suma la tusalunna yawma izin anin naimi ak wala taxfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu masula yàlla neena li ngay deg li ngay xeeñ li ngay gis loxo bi ngay laale tànk bi ngay doxee noyyi bi ngay nooyee duma bàyyi benn detaay benn boo léegi yomal xiyaam lépp dama leen koy laaj yéen jaamu yàlla yi ñu ne yonent bi ku bëgg mucc nooy def mu ne juróom ku bëgg mucc maa ngi lay dénk juróom aleykum bi xamsati xisaalin bu ngeen bëggee mucc ci seen responsabilité yi dox seen diggante seen borom ak seen diggante nit ñi man rasulillahi maa ngi leen di dénk juróomi mbir sidqul hadisi gis nga nit bu fexee ba dëgg ba ñëpp xamal ko ko wàcc na Serigne Babacar Sy Mansour nee na xalif général des Tidianes nee na nit kenn poussé wu ko pour mu fen lu lay tax di fen da ngay góorlu ba ñu xamee la loo wax dëgg la bu la daral jaral wax mbir ñu seet ko mu wuteeg lay dëgg bi ci tegu bala mu ne wajiti naabul kasdi bi da nga góorlu ba sa giiru dund doo ma soox benn wax nit di ko déngi dénge loolu nag nit a koy liggéeyal boppam ak ban mu ne wal wafa'u bil ahdi lu ba waxante ak nit nga fexé ba matal ko budé rendez-vous doo ko fausser bu date sangam date bobu bu bu ëllëgee nga def ko waaw boo ko sa andando du ko fàtte bu la gisé di ko laajte xalifa moo mos wax nañ ko serigne Babacar sallallahu taala kenn melul ni mom ci kóllëre serigne Babacar bakam bu la xasee ba xam du la fàtte bu la xasee ba téyé jeexna mam khalifa radiyallahu taala nu gor yalla bu mag boobule ku amon ay jikko yu tedd la serigne babacar gis nga góor gu bax gi nekkon riceer ñu di ko paas gis nga ni mu teeyee teyuk serigne babacar si daluk serigne babacar ci pap si daxmet ci bobu moko ko daf ne won deg bu togan ci salam bobu le tok du yang du raf ndax yar bu cheikh alhaaji malik def ci mom. ak ban mu ne wal ada'u bil amanati lepp luñ la wolu nga fexé ba matal ko nañ la ko wolu Sénégal rek man de Sénégal laa gis ku ñuy fal ministère ministre ñu woo la di la ndokkeel say bokk di fecc ni mu ni mu diisee responsabilité lu tal ni ak ministère ñu bëri aj ci seen yaakaar nga di ko doxal te xamoo ci lan lay mujj te bal buñ la follee nga yem ak ñëpp kuñ ko fal boo nitee war a tiit war a ñaan lu ji nag war a ñaan lu ji waaye ku nekk yaa ngi def fexeel naa fexe bañ ma fal ñaanal leen ma ma ñu fal ma waaye boo faloo nag fàtte nga ne ñaanal leen ma ba ma réussir mission bi delloo ko ci anam ba mu gën a rafetee te suma ko delloo kenn du ma xëy loolu jar na ñaan ak ban yaa rasulallaah mu ne wa hubbu saalihiina ngeen fexe ba mbooleem ñu baax ngeen bëgg leen doomu aadama su bëggee ñi baax rek baax waaw moo tax booy taaye mënoo julli te taaye woo julli ga du baax soo ko tayee soo ko tayul dañ koo si jotal parce que sunna la alquran mu ne boo yonent bi jàngale ci biir taaya da ngay wax na wa ala ibadillahi salihina yàlla maa ngi ñaan attahiyatu lillah azakiyatu lillah attayibatu assalawatu lillah assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihina sëriñ babacar si abdou mu ne assalihina koo ciy génne koo ñeme ne bokku ci kon maqaam yooyu mooy yi nga xam ne bu dajee ci yow moo di comportement yooyu mooy qualité yooyu ci ngay nekk jaamu yàlla boo xam ne am nga responsabilité yi la yàlla dénk xam nga ko bi ci jitu nak moy maqamul ikhlas wa maa umiru illa li ya'budu yaabudullaha muxlisina lahu diin Sénégal def lu bax yomb na fi way def ta yàlla tax nak yombatul lépp loy def yàlla tax al ixlaasu lillahi al ixlaasu moy ruuxul ibad moy ruuxul amal jëf joy jëf buñ la laaje ana ruh ga ne la mooy sellal jaamu yàlla goy def buñ la laaje ana ruh ga neel moy selal loy def selal ko dunduna loy def selal ko baxna waaye lépp looy def te sellul baaxul santul yàlla yàlla bëggul sellal nag mooy li ngay def yàlla tax bu fi ñëpp sayyiduna sayyiduna aliyin karamallahu wajahu mu ne fi ma toll ak yàlla ci conviction ak détermination ak ngëm gi ma ko gëm su ma demoon ba sës rëkk ci yàlla mu ubbil ma malakuutu malakuut ubbil ma aalamu naasuut aalamu malakuut wat ma jëmmam ja wat ma safaraak yëpp tëkkuwaat ma yeneen tëkku li ci man ci ngëm mënatul yokku man ko wàññeeku fi ma war a yem clé alxaaji sunu maam alxaaji Abdou Aziz Dabakh radiallahu taala anu keroog ba mu demee siyaare ji suñu maam alxaaji Omar Ndaw xut waliyu bu mag ba xut bu bu rëy ba ca Daaru Salaam nit yàlla bu boobu le mooy way juru Serigne Muntaxa di way juru Serigne Mouhamadul Bachir ma fa ne ak Mouhamadul Habib Baye Taha góoru yàlla yooyu Serigne alaaji Serigne Wuli bu mag ba maam alaaji Omar Ndaw keroog bi ko maam alaaji Abdou seetee ba wan ko ginnaaw di dem dafa ne góoru kee di dem de yàlla xamal na mën a jëmmam jël lu ci toll ci tarfatal ay na lu ci delloo ko ci ragal yàlla tarfatal ay ni lu ci dolli ci ragal yàlla jëmm ji dafay exploser fi ragal yàlla yem kale na mënta yokk moo tax ragal yàlla bu duggee ci jëmm plus muy gën di dund di gën di bàyyi gën a bàyyi àdduna ginnaaw di gën di jege boroomam maam Abdou boo xoolee mujjug dundam kéro bi darñal burdu bi mu tok ci jàkka ji yëkëti baat ba baat ba mu yëkëti ñaar loxom ya di def ni lolu modi sama dund bi jeex laqad afnaytu hayati fillahi wa ibadatillahi wa hubbullahi wa hubbu rasulih sallallahu alaihi wasallam hatta qad fana aljamia man nak ma ngi len di tag ila rahiqil maktum ñaari loxom ya non lañu doon taggo ci biir zawiya bi radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakati yalla nañu ko yalla fayal bokku na ci tamit ci li dimbalé nit ki ci responsabilité yonent bi aleyhi salaatu salaam si atu sadri nga yaatu deun borom da fay yaatu njit da fay yaatu deun ku am ku am responsabilité fay yaatu deun nit bu yaatu deun rek léppam da koy mané yenu lépp loo ko yen daf koy mané a waaw waaye bu khat walaw kunta faddan galisa alqalbi lam fadu min hawlik fa bima rahmatin min allahi lintalahum yàlla mu ne yonent bi fa bi amee rahmatin min allahi yërmande bu ma defa linta lahum ci nga mën a accepté mbonu ñëpp ah da ngaa fekk na yonent bi muy génn àdduna cent vingt quatre mille sahaaba yi mu fi bàyyi ñii di nit ñii di jinne ñëpp bi ñu ñëw ci moom dañoo baax ku nekk sa jikko kenn ku nekk ak say benk ñenk mu téye la di la redressé ba nga mel ni yàlla bëgg da ngaa foog ne Maulana Cheikh Alhaji Malick nitu yàlla yi ko topp muqaddam yi mu def ak taalibe mi ku ne ba ngay ñëw ci moom da mat ku ne amoon na lu manqué ci moom Sadio Maal la ak say benke ñenke say matadi di la mottali ba teg la ci kanam nit ñi nga mat la nga doon loolu mooy responsabilité ki nga xam ne dafa nekk ci kanam nit ñi xam li war a def ak xam li mu war a jàpp ak xam ni mu war a jëflanteeg nit ñi bi ci tegu ban la mu ne mu xaalafatu nafsi ku xam responsabilité daw seytaane waaye ginnaaw bi nga dawee seytaane na nga daw bakkan niñ ko waxee léegi responsabilité bu la duggee lu saf nit ñi dootu la saf boo xamee li ci kër papa saako ceeb bi jeex na papa courant bi carte bi de fay na papa sama dépense papa sama tànk sama dàll papa sama fourniture papa sama fay école papa sama transport yooyu ku mu nekk ci sa bopp nga gàddu ko te nar koo matal ba mu te ba mu mat te xam ne yàllaa la ko teg mu war a nekk nag sag ci yow ndax yàllaa la ko teg ku ko xam te gàddu ko dina am loo tal ak ban yaa rasulallah mu ne wa bi bashasatil waj nit ku bax deug ta xam responsabilité foko seen bañ ya ngay jëk seen waaw koy faral di wax bo jaay nit ñi naqadi dara fa sa kanam guux say lex ba muy nirok bal bu oval nga sanni sa kanam ga ci geejju ndar ga du tee nit ñi añ du nit ñi reer yonent neena al mu'minu alifun wa ma'lufun julit pire moy ko xamne da fay accessible non la julit demel ak ban mu ne wal lutf bil akhlaq ëmbal ñëpp ñewant yéen a ñëpp bëgg ñëpp baax jaamu yalla bu baax non lay mel bi gëna jëfé nak moy bi arida bil maqduri wal makruhi lu yalla wacce ci sa kaw nga nangu bu nexé nga ne yalla bu nakade nga ne yalla karida bil mahbubi ni is kullun min indillahi subhanahu wa taala wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yalla. mama laji mali mu ne wa man alaji mali dama lay ñaan ñun yalla ne ko loo ñaan loo may ñaan mu raddini yalla nak ma kontan la kontan lo bil qada ci sa dogali yu metti rabbi yo ya sama borom musabbirani yalla ma may moma diko muñ ala balaika ci sa bala yi ngay wacce kon nga deg ne ñu ngi dund ci jamono bo xamne ne yi mbass la kon bala bi ci sunu kaw nañu xamne ne bi wax febar. du febar bala nga ñu febar bi mu ne de da ngeen jum balaa la ñu ne yunus bi alayhi wasallam lan moy wacce bala mu ne mana sala bala un illa bi dambin wa ma rufia illa bi tawbatin fa tuuboo ilallahi ayyuhal muminuun loolu da yonti bi wax mu ne balaa du wàcce lu dul bàkkaar yu bare yàlla du ko fi jële lu tuub taba bàkkaar ya kon bu ngeen bëggee balaa bi dem tuub leen taba bàkkaar mu jeex tàkk yonti bi de loolu la wax ma nazala balaa un illa bi dambin wa ma rufia illa bi tawbatin fa tuuboo ilallahi bakar balaa mosta wàcc cim réew wala ci dëkk wala ci àdduna lu dul bari te ku xool àdduna xam ne bàkkaar bari ngóor jigéen nan lañ koy mën a justifier góor ak góor di ànd ay lobi na ci ginnaaw diine l'islam di ko xeex ci xeexin boo xam ne ñëpp teg nañ ci seen bët dem ba makkatal mukarrama ñu bëgg fa daganal ay baar wala ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam madinatul munawar ñu tabax ay hôtel yoo xam ne ay nit dañuy jóge ci àll ba góor ak jigéen di fa mooy yàlla am na ba ci biir màkka doomaa damaa ñeme fu yonent bi daan daagu koo xam ne mooy aynul haqiqati al ilahiya aynul haqiqatul ilahiya mooy miratu zati rabbi subhanahu wa taala lu la réer ci yàlla boo ko bëggee xam jaar ko ci rasulillahi dëkk bu mu doo yaroo fa màggee fa ñu yónnee ko fa alquran wàccee fa defar adduna bi mu dem Medinatul Munawwar def fa lam fa def am ndamam lu rëy la isa jaa nasrullahi wal fathu tafax fa réew bu tedd boobu la dëkk fa nga xam ne tëraayam ci kaw suuf moo tax àdduna jag moo tax lépp jag ba mu faatu yàlla man na yebal malaaka yi ñu ñëw jël ko ndax war a fa anaaw makaanan aliyan ni ko yàlla defalee Idris mën na ko defal rasulillahi mooy mu bàyyi ko ci kaw suuf tëraayu rasulillahi ci kaw suuf mooy tax àdduna bi am équilibre bu ëllëgee malaakal mawti malaaka mi nga xam ne moo war a taxañ àdduna bi bu àdduna tukkee ba muy taxañ àdduna bi buy taxañ ba yegsi ci rawdu yonent bi daf koy dégg du ko laal bu yegsee ci kaaba gi lu du rawdu yonent bi ak kaaba gi lu jàkka rëy rëy lu jumaa rafet rafet lu rawdu rëy rëy lu ay sëg ay garab yëpp malaakal mawti da koy taxañ mala buy tukkal àdduna bi te baaraamam bii la koy taxañee te booba nit ñaa ngi ci biir suuf si yax yi di rakkakakki mu di ko taxañ ba yegsi ci rawdu yonent bi dégg ko ba yegsi kaabatul musharrafa mu dégg ko ñoom ñaar yooyu noonu la leen di yëkkate yóbbu leen aljana bee ñu teg ko ca kaw baytul maamour bee ñu teg ko ca buntu aljana bi rasulullaay di dëkk mooy aljana firdaws nii nga gisee rawut bi noonu lay mel ëllëg yowmal xiyaamate ca aljana takriman lahu wa tashrifan ngir teraanga bu ko yàlla defal kooku di dund ci kaw suuf di dëkk ci dëkk ñu di fa mooy yàlla lu baax ñu di ko ñu di ko fa tere lu bon ñu di ko digle ñëpp teg ci seen bët bu balaa wàccee ci àdduna bi kenn du ko bi azami zamani wal makani taazimu taatin maal isyaani wa hakaza ca tiwaawan wa hakaza ca nimsaat wa hakaza ca tiwaawan wa hakaza ca laayeen ya yoof wa hakaza ca lew na ñeseen wa hakaza ca Medina Baay kër yi góoru yàlla yu baax yi tëdd wa hakaza ca Daaru Salaam wa hakaza ca Sokone wa hakaza ca Louga wa hakaza ca Ndakaaru réew di Ceerno Seydou Nourou Tall bu baax bu tedd bile nitu yàlla yi fi ñu tëdd dañ leen a war a xormaal ndax nitu yàlla fu mu tëdd yàlla xool fa bët yërmande am na ñoo xam ne fu ñu ne yàlla wàccee fa bëri yërmande moo tax yonent bi alayhi salaam ne ma nazala balaa un illa bi zambin wa ma rufia illa bi zambin fa tuubu ila llahi balaa du wàcc mukk mukk mukk lul bàkkaar yaa bëri tuub leen tuub nag mooy jox sa borom yàlla nooy joxe yàlla sa borom mooy nga rafetal jëmee ci ñëpp lu ñaaw nga moytu ko lan mooy rafetal ñu ne al ihsaanu baadal ihsaani fadlun waaw fadlu ku la defal lu baax nga delloo ko lu baax tane nga tane nga waaye ñu ngi ci réew moo xam ne koo defal lu baax cafaanam la lay fay car famille boo dem ka ca ëppale di dimbale nit ñi la muy dégg bu la ko waxoon nga ne déet man Aline jaañ maa lay wax ne la kenn ku ci nekk fa nga toog di ma déglu la lay gën a naqadi am na loo xam ne wax nañ la ko suñ la waxoon na ko diwa la ko wax doo ko gëm lu la gën a naqadi kañ lay wax ne moo la koy def da nga naan déedéet ka nga gën a bëgg gën koo foog gën koo dimbale moo gën a bëgg sa échec ci boobu jamono lañ toll mu ne waaye wal ixsaanu baadal ixsaani ñu ne ah mu ne kooku mujaazaatu wal ixsaanu baadal isaati karamun nga baal ma nit ku la defal lu baax nag nit ku la def lu bon kon nga delloo ko lu baax kooku ku yëw a koy def waaw sëriñ Babacar Si Abdou mu ne di nga xam ne yaa ma di nga xam ne gënoo maa mbaame di nga xam ne gënoo maa xaje mu ne doo xaj doo mbaam nit nga ku def yëfu mbaam defal yëfu nit ku def yëfu xaj defal yëfu nit nit yëfu nit lay def waxuñ nit nag al yëtu moo tax ñuy wax mu ne wal isaatu baadal isaati jaw baadal isaani jawrun ku yàlla def ku nit def lu baax jëmee ci yow amoo loo koy fayee lu lu bon da saay-saay mu ne nag wal isaatu baadal isaati tazaalamun ku ma def lu bon ma def la lu bon mu ne ñaari mbaam yi yem la dañuy tooñante wa in aqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum wala in sabartum lahu wa xayr ndax wallahu ma sabirin def lu bon yonent bi alquran nee soo mënee fayu fayul na toll nam la ko def soo muñoon moom a gën a waaye ki la bi mu lay mbéj mu mbej la fii nga mbéj ko loxo ci côté goos bi am nga bàkkaat droite la la mbéj nga mbéj ko gauche bi mu lay mbéj bu la mbéjee ñetti baaraam ñeenti baaraam nga boole sa ca baaraam day bi tooñ nga ëppal nga kon jéggale dafa gën fayu ndax boo fayee mu ëpp mu ne waaye wal ixsaanu wal ix wal isaatu baadal ixsaani lu mun wa karamun ku dëkk ji di toroxal ku la bëgg dëkk ci gotti ku la fonk dëkk di fayee nit koo xam ne lu baax la coxarte ak iñaan moo nekk ci sa xol ak ñàkku ngor ak goree di moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne su ñu baal ma ko sunu maam alaaji Mansour wax ne araamun ala man naa la baadu fadaili min allahi an yosa ilayhi tafaulu ku am cër ci yàlla ëpp fayantoo ku am cër ci yàlla ëppale boppam fayantoo nit boko xasse baraw rek xamal na raw nga ki la nan sa ginnaw gu déex gi da fa da nga ne ci kanamam bu nekkoon ci sa kanam du gis sa ginnaw gu déex gi bako muy joxan sa ginnaw gu yow ngay avancer wa ala kulli muslimin fi hadhihi hadihi ad addunyawiya an yakuna haliman layinan layyinan li jamii ahlihi wa li ikhwanihi wa li jamii ibadillah ab jam buy dund ci kaw suuf bu mu mën a doon war ci boko yegge boko yëgul moy nga lewet moy nga bax mooy nga def yiw jëmee ci bépp jaamu bi yàlla boo xam ne yàlla boole naa moom jamono ngeen dund moo xam sa mbokk la moo xam du sa mbokk ku mu mën a doon rek loo man ci lu baax def ko jëmee ko ci moom ndax loolu mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle ndax fa man ihtada fa li nafsihi ku def njub daal sa bopp la ku def lu bon it sa bopp la yaa ko yéetoo maa ngi daaneel foofu sama kàddu di nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di gërëm di sant tey ñaanal suñu techniciens yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci côté machine bi di sonn lool ñu leen di ñaanal yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa ila liqa doon faama la xaalu la